أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk julli di ñu ngi leen nuyuwaat ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel te di leen siyaara di leen ñaanal yàlla tawféex ak taysiir ak naja ak fatxu yàlla nañu ko yàlla boole ñoo ngi waat mbokk di yépp ak mën di nekk di ñaan suñu borom mi yore xewal ak jàmm yàlla nañu ko yàlla boole ah, di delluwaat di ñaan yàlla yàlla ubbi xewal yépp di ñaanaat suñu boroom mu faj aajo yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waat na ñëwaat bi leen nuyu seen mbokk sëriñ Ousmane Sam eh, nekk fii ci Thiès quartier R100 eh, di leen jaajëfal bu baax ci mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan suñu seen YouTube bi moo xam ñi abonné ci seen bi la wala ñi nga xamante ni eh, ñi ngi siifur yenn vidéo yi ci jariñu comme niñ ko baaxoo di wax rek ñu ngi ñaan suñu borom lépp lu ngeen ci jële rek yàlla ci yàlla def barke ndax barke rek moo jar ñaan eh, al barakatu isaa daxala fi shay'in kasirathu eh, barke lu mu dugg rek da koy baril da koy barkeel ba noppi baril ko wa isaa xaraja min sayhin xalilat xaw waaye barke lépp lu mu génn lu mu bari bari day néew kon ñu ngi leen di ñaan baax suñu borom defal leen jàmm waaye def barke ci liggéey yi waaye def barke ci xéewal yi yàlla yàlla defal leen barke defal leen sutura àddina ak waa laaxira ñu ngi ziaram ñépp nag eh, ñëwaat ak yéen nag tey jii ci njariñal alquran ay lenn ci sakara nasaraar lenn ci sakara nasaraar yoon biñ ci joxe nak yoon la bo xamanteni yoon bu ama am solo la euh, dañ indi insha allah tariqa ni bu ci euh, temps bi maté bu ko temps bi mayé dañ andi ñaar yoon benn bi ci faatixatul kitab waye benn bi ñu ko ci ismu kafi ismul kaafi nag ismo la boo xamante ni eh, dana dox ci kaaraange waaye noonu lay xëccee wërsëg waaye yoon bi ñu njëkk indi nag ci faatixatul kitaab lañ koy indi su ko defee yow mi may déglu bu fekkee yàlla dafa dogal nga tawat nga feebar wala may maladie yu nekk sa yaram wala nga bëgg yàlla faj say aajo yoon bii ma lay jox ci faatixatul kitaab man na ko قلنا بو ديفه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم موم نك داك ديف عدد لا اله الا الله موي 166 موم غادي استغفر الله جولي جي انت صلاه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي لمي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه بو 92 مو فاي ديف مو تول محمد بوكو كالكيني موم لا لاي جوخ موم غاي سيكر صلاه بي waxtu woo paree ci salaatu bi su ko defee nag nga daal di liggéey faatixatul kitaab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim malik yawmi diin iyaaka nahbudu wa iyaaka nastaxiinu ihdina siraata almustaqima siraata allazina anhamta alayhim xayri almaqdubi alayhim wala dalin amin nga def ci bismillahi rahmaani rahim boo koy tàmbali Eh, nga liggéey nga adadu 124 adadu 124 fatihatu kitab bo ka bo commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ba ci wala dalin daf lay jox 124 lettres 124 boko ko multiplier par 1000 mu jox la 124 prophète yalla musa yoni kon fatihatu kitab sirru bu am doole adadu 124 bi nak adad la bo xamanteni adad bu yeme ci fatihatu kitab kon mom ngay sikkar fatiha boo noppee ba sikar cent vingt quatre fatiha da ngay delluwaat ginnaaw nga baamu ñaari ay iyaaka nahbudu wa iyaaka nastahinu iyaaka nahbudu wa iyaaka nastahinu nga def ko adadu cent soixante-six mooy adadu laa ilaha soo noppee ne nga tëj ko salaatul fatiha wala salaatu ala nabi bi nga ubbi woon mooy lumi bi allahuma salli ala sayyidina muhammad nabi lumi wa ala alihi wa sahbi wa sallama nga def ko 92 daal di ñaan say aajo insa allah rabbi budé aajo yalla dana ko faj su fekkee ni da nga am ay jafe-jafe bo ci ñaané yalla dana ko faj su dé da nga feebar tabat mo la japp yo xamante ni na ci yow wala tamat bu mu mën di do nga saxal li diko def ba pendant sept wala ñetti fan wala 9 jours insa allah aajo jooju nga xam amé nga ko yalla dana ko faj même bo nekkoon ci ay jafe-jafe jafe-jafe yu mën di doon mo xam jafe jafé yu mën di doon mo jafe-jafe xaaliss la wala jafé jafé wéré dig yaram wala jafé jafé kayit wala ñuy toppatoo ay papier yoon bi mala jox boko saxalé inshallah suñu borom dina fay sa yaaji yoon bi ñëndé ci ismu kafi yoonu karangé la yoonu karangé way dañ ci indi benn ismu bo xamné inshallah yow may topp ci deuxième euh, vidéo bi dinaa la ko jox wa dina ko ñu moy ismu bi ñu wax bés baaxu badabidu kawrushin mom fukki kafi la ak ñent mom mo tollu ak 111 multiplié par 14 mu jox la bés baaxu bada bi du kawruusi waaye yoon bi ma lay jox nii wàllu kaaraange la ginnaaw boo jullee suba ba noppi nga def faatixatul kitaab 111 moo toll ak kaafi nga daal di jël sa koos liggéey yaa kaafi 1111 yaa kaafi 1111 ba noppee nga daal ci teg wallahu yaxsimuka min annaasi 111 salaamun qawlan min rabbin rahimin nga def ko cent onze fasa yag fii kahumullaahu wa huwa samihun alimun nga def ko cent onze inna kafaynaakal mustahsihiina nga def ko cent onze tëje ko salaatu ala nabi san onze mbokk mi may déglu insha allahu rabbi lii soo ko defee mboolem liggéey bu ne sa yaram wala seytaane wala jinne ju la yàqal insha allah daana dañ ba set wicc ci kàttan suñu borom yoon la boo xamante ni nag mu jarab sax essayé nañ ko ay yoon mu nekk lu wér képp ku ko liggéey protection la fatiha 111 yaa kaafi 1111 nga indi wallaahu yaxsibuka min annaas 111 salaamul qawli min rabbi rahim 111 ka euh, kafaynaaka al mustahsihin nga def ko 111 salaatu ala nabi 111 yoonu kaaraange la boo xamante ni incha allahu rabbi boo ko saxalee def ko suñ borom da la musal ci jinne bu dee rab wala saytaane wala liggéey bu bon bu la sànni wala kort moo ko defee yàlla dana la ci musal ci kàttanu suñ borom kon lii mooy nekkoon secret yi ñu leen indi loolu di wax ne yow may seetaante abonné boo nga góorgóorlu abonné ci seen bi ndax dana tax yenn secret yi nga xamante ne ñu ngi ko ciy joxe nga mën cee jox abon abonné bi nag jafewul boo duggee mbind mu rus mee gis ñu bind abonné da ngay bës bës kalos kolos bi jeex na bu ko defee bépp vidéo bu ñu dugalati incha allah danga ci mën a jot kon ñu ngi leen di siyaara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin